élection locale yi résultat yi say euh, résultat yi ñu jot a génn dégg ànd nawle moom moo jiitoogum foofu ci kaw Kaolack alors euh, ñu bàyyi la lan ngay indi peut-être par rapport ak ndax da nga koy confirmer déjà ces tendances ak yenn impression nga am waaw euh, tendance yi moom yéen journalistes yi yéen ma gën a xam li ci am waaw mais je pense que ñun ay projection lañ amoon comme euh, semaine passée xamoon nañ ne minimum danañ gagné à soixante dix à soixante quinze pour cent mais yaakaar naa tendance bi mën naa dem sax euh, à quatre vingt pour cent te loolu euh, kii la daal vraiment lu lu lu ci élection locale waaye loolu lépp li ko indi mooy dañoo porter na message boo xam ne ni kaw la ko waa yëpp Euh, dañoo yor dëkk boo xam ne ni xam nañ ne dëkk bu riche la dëkk bu am avenir la bon depuis indépendance mu nekk ci loxol politiciens yoo xam ne nii euh, bon waxuma ne liggéey ñu bàyyi fi ñu war a yóbbu dëkk bi yóbbuwuñ ko léegi nag loolu tax ñun biñ jógee ñu wut suñu coalition boobu tuddee ko ànd nawle ànd liggéey euh, te xam nga ne c'est difficile pour homme d'affaires nga nga nga nga dugg ci bëgg jàkkaarloo ak parti boo xam ne nii parti état la Euh, parti parti euh, parti pouvoir la excusez-moi parce que état du am parti euh, et mais nag vraiment liñ ci am ndaw rek mooy Kaolack waay yi wuyu nañu ci li ñu amoon yaakaar ci ñoom. waaw Serigne yaa ngi wax 80 pour cent waaye 80 pour cent moom bari na di yow boo jiitoo am 80 pour cent xanaa ñeneen ñi moom sori nga leen lool amuñu dara. waaw mais li ma la wax kay mooy tendance bi mooy xëy na demee dina gën confirmer mais gagné gagné la rek même bu fekkee ñoo jiitu ñoo gagné mais li ëpp importance rek mooy li ëpp importance mooy man comme li ma wax ñëpp rek du man maa am ndam li ndam li Kaolack waaye la plus que ñu jox ñu score plus que ñu xam ne espoir biñ compté ci ci ñun war nañ ko war nañ ci gën a góor góorlu parce que mérite bi waa Kaolack waa ñoo koy def te xam nga euh, ñun sunu sunu ñu élèves yi dafa nekk euh, exemple boo xam ne nii ñun amul droit à l'erreur parce que dañoo prôné ne ñun ci daara lañ jóge bien que def nañ études yi ñu war a def yëpp voilà expérience am nañ ko ba noppi mais li ñu gën a xam dañuy wax ne ay dongal daara lañ mhm. léegi loolu tamit beneen côté bi tamit euh, bien que ay opérateur économique lañ opérateur économique on gère des entreprises mais dañ lay gisee comme commerçant bool bool tout ça mais loolu lépp bañuñ ko mais compte tenu yooyu yëpp nag dafa daje ci ñun loolu moo war a tax nag ñun tamit ñu war a góorlu ak équipe bi ñu àndal pour mën a def liggéey bi mais loolu ñu ndax ku dégg ñun ni ñu campagne yi ñu waxee tout ça lii am lu surprise ci ñun xam nga di dem élection nekkoo naan danaa gagné ay cinquante pour cent cinquante et un pour cent nga danaa gagné soixante dix pour cent boo dégloo sama dernière Euh, meeting wax naa ne minimum danañ am soixante dix pour cent et je pense que tendance bi moom confirmé na ne soixante dix pour cent am na léegi nag li ñuy xool mooy fekk demee ba yeneen bureau yu ñëw euh, yaakaar naa ñun danañ am soixante quinze pour cent mais li ci ëpp importance rek loolu laa wax dama ne la mooy mhm. euh, liggéey liggéey bi ndax ñun dañoo ànd ànd boo xam ne ànd naw lay suñ paree amuñ plan global politique amul mhm. benn plan politique li ñu am mooy plan liggéey pour àndu àndu nawle liggéey Kaolack alors euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Serigne Mboup candidat àndu nawle foofa ca Kaolack euh, d'après résultats yi nga xam ne moo jotagum génn Serigne Mboup largement en tête euh, ci kaw Ndiaye Rahma bi nga xam ne mooy candidat coalition benn Bokk Yaakaar ak yeneen i candidats yi nga xam ne ñu ngi foofu ndongal daara ça veut dire Serigne mu xam El Hadj Mansour rupture peut-être bu bu Kaolack am ci li nga xam ne mooy politique yi teg koo xam ne opérateur économique la ndongal daara la mais bu ñu ko analyser globalement sànq maa ngi koy wax responsabilité bi ci jeunes yu bari ak ñi nga xamante ne euh, politique la ñuy def euh, euh, ñu fës ci loolu ñu bari ñàkk seen ay localité duñu wax ne sénégalais yi ñoo bëgg a xaw a bàyyeeku ci ñenn ñoo xam ne dañuy politique de trop.